Salut les amis de eSport TV et de Baba Show, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé gars et chaque fois des partages et information inbox sénégalais, fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal, Rukrukhari, Gorgokhari, Ninglen de Djadjefel, Ninek également qui est l'hôpital et qui est du Fébar, Yalna Sun Brom Fogsen Bok, Gam, Ninek Kasso Ingen Hamne aussi erreur judiciaire, À Nidaful Molen Foyob, Sun Brom Generen Fe, Delwar Len Sénégal, Ni de Doaduna, Sun Brom Kharlen Adjane Fenda aussi gars et Yéhe, nous ensemble dans la magie de Baba et des Sport TV. L'actualité en contenu caractère de Newfassin Edouard Tani donc nak ki di kalan sur le timine Brayal de Coupe du monde des clubs euh, qui nak dit également Abib Diallo et euh, Nicolas Jackson en danger mauvaise nouvelle pour Ken ci hein, la la de tout aussi ci Guardiola et mi nga donc également Vinicius Junior mais di invité bu vidéo bi hangendem également ci eSport TV le problème est les joueurs sacrifiés par Alucissé, nous ñi aujourd'hui Aliou Cissé nouveau mais da leen di tere toogee si lan la mbiri démé ban xalaat lañ tam ñu fa seen waxtaan ak yow ki nak di Will Steele mom nak actuellement moo nar a nekk le nouvel entraîneur de lance gannaaw bi nga xamé nak entraîneur lance ba ci boppam mom dem na du côté de Nice style moom moo fa nar nouvelle ñëw nekk entraîneur 2027 Pep Guardiola nak tëj na définitivement Porto wa FC Barcelone nee dal daal ni dotul de nii delu FC Barcelone ci ab interview bu mu amal ak ay média mu xamal na dal mo fi ne na buntu wa FC Barcelone ki di Pep Guardiola mais aussi àdduna ci nga xam ne di ki di joueur Cancelo di joueur mu ne Cancelo joueur Manchester City le joueur bi ne dafa bëgg res Barça mu ne nag j'espère que ñaari club ni nañu waxtaan ba jubóo pour l'intérêt du club également l'intérêt du joueur mais la limite moi me bon voilà c'est un joueur bo xamné il aime faire jouer au football et que fum mu bëgg dem aussi dañ ko ci jappalé mu daal di fay dem Guardiola aussi wax na ci Cameroon donc Bernardo Silva mu né lu wax ji di bëri bëri bëri bëri yëpp amaguñu benn proposition bu leer bu ñëw ci suñu table jëm ci lu ni mel te gëwuma également que ne moom si boppam bëgg na fay jóge mu Bernardo Silva ki nak di Julian Alvarez moom nag ñaay gars dañ ko laaj ci mu né wa dëgg Yalla instant yi dal gars yi man moom sama me bien du côté de Manchester City li des nag dañuy xol ak fan yi di ñëw na la mbiri di démé lool dal mën naa ko ci daal di wax mais bu dee man rek je me sens bien du côté des Citizens eh, ki nga xam ne également nag moom mooy donc Kylian Mbappé ak euh, Vinicius Junior wara a de won équipe ah ben jour bu wa FC Barcelone bo xamne waxna ci ñom ñaar lim ci wax nak nañ ci delu ci ci beneen vidéo mais da ngay ree ba di tasa ki nak aussi di euh, Carlo Ancelotti moom nee na euh, wax Toni Kroos ne ko Toni bo démé sax bay wër passé hein nga leer na nga bëgg a wat wax ma rek ma jëlat lañu di ñu joué ko parce que man bëgguma nga téla bay donc ki nga xamne ne donc Ancelotti neena mo mi ngi insister gëm na ba légui Toni Kroos mëna delu ci ci cadeau mi nee na waa euh, Real Madrid du bokk ci coupe du monde des clubs lan moo tax Real Madrid du bokk ci coupe du monde des clubs muy coupe du monde FIFA bi mooy ne ñoom euh, Carlo Ancelotti nee na euh, match woo xam Real mu ne benn match am rek vingt millions d'euros lay jar ci xaalis benn match Real léegi yow compétition bi yëpp ñu bëgg la ci fay vingt millions d'euros nee na ñoom ànduñu si tey. anuñ ci ëllëg Vinicius Junior nak pour la première fois ci walum sport en matière de racisme ñu daal di ay eh, nit nag ah tëj nañ ci ay nit yo xamné ñat ci Valence ñom ñoo doon daal eh, jël kàddu ñagas di ko ci si Vinicius Junior te jël huit mois wu kaso juróom-ñetti wëru kasso donc lool nekk nag une première ah, dans l'histoire du football ci walum racisme ñu daal ci ciy ay nit ci eh, match ya ah. nga xamné également mooy aussi Joao Félix mom le joueur donc actuellement même bu fekké né Barça lañ ko alone club yu bari ñu ngi ci ek waa Atlético ñoom daal danañ fi ne ni koppar rek Kevin Meno également la pépite de Manchester United fi mu ne ni dirigeant Barça aussi ñi ngi koy daal di topp le jeune Meno parce que profil dañ dal daal intéressé et que japp nañ ne voilà dans un futur prochain nekk seen joueur ki nag di Etienne Capoue moom il va quitter librement hein, l'équipe de Villa. Real bu mu fa jëlee woon nag ak ñoom di euh, Ligue Europa moom il est libre de tout contrat Capoue pour d'aller di euh, jouer ainsi donc une histoire se ferme pendant ce temps également Paulinho le joueur de Fulham fini n'a qu'à nag hein, waa Bayern à la charge mais Fulham daal 30 millions hein, bu ñu la là. laaj Fulham daal ñoom fi ne nii nee nañ koppar gi daal la ñuy gën a laaj balaa ñoo wax sax ci waxum Jai aujourd'hui bi wala de ki nak di Nicolas Jackson gis ngeen ko Nicolas Jackson qui a fait une saison euh, pour le moment très correcte avec wa Blues de Chelsea parce que mu nek deuxième meilleur buteur bu Blues de Chelsea mais teewlu fi ni dirigeant ñom ñi ngi wut yeneen attaquant de pointe pour ñëw ko concurrence on parle de Sesco on parle de yeneen joueur mais Nicolas Jackson actuellement il n'est pas aujourd'hui hein, sûr que ne sax match euh, saison prochaine du ma parce que c'est un entraîneur bu bees voilà donc moom bokku ak ki nga xam ne peut micro de défendre chaque fois japp ne boy mën a apporter dara n'a